amatuñu réew donc eh, eh, nit nee na c'est c'est extrêmement de vivre mm. maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo fi ne naan nañ nit yi respecté état de ñoom ñoo war a njëkk a respecté état de maanaam exemple a de manipulation et de populisme aussi docteur là aussi il faut le reconnaître aussi vous êtes trop dans cette politique de manipulation aussi non non nga tey man xam nga lan nga tuddee manipulation man li ma li ñun mais dire aux Sénégalais que yéen a def ay erreurs ci seen ay liste autant que benn bopp yaakaar mais ñun mais ñun ñun defal nag ñun dañoo def recours mais ñun li ñu jàpp mooy que les erreurs yi ngi am suñu liste c'est pas des erreurs yu doon éliminer liste des erreurs des erreurs matérielles nga c'est des erreurs matérielles yoo xam ne c'est on peut on le corrige noonu la fa di deme yaa ngi dégg ren lañu def exception parce que Yewwi Askan Wi la yow la dina dafi def exception parce que Sonko la dina dafi def exception parce que Khalifa Sall la parce que Déthié Fall parce que Aïda Mbodj la voilà le problème le président Macky moom moo ne mais leen seen liste titulaire. Hmm? mais bu ñu xoolee titulaire yi. ñu nekk si ak euh, titulaire yi ak ñi nga xam ne ñoo nekk si suppléants yi aussi voilà par respect pour ces gens là ñi nga xam ne ñoo nekk si seen liste suppléants yi. est-ce que tey mënu leen battre campagne pour ñooñu nga xam ne carrément defa defoon nag njab ñun ba léegi ñu ñun waxuñu ne baatul ñu campagne ñu dañu ne élection yi ko def date bu baax. Ah, parce que yéen neeneen yi nañ ko def ci date bu baax bi. Mhm. date bi mu war a ne. Mhm. la war a nekk sama sama kii bi la sama mhm. sama sama alizé bi ah, donc nañ ko def ci dat bu baax bi. muñ ko buñ ko puus. mosuñu laaj rapport kenn suñu dégg ñu wax kenn mosu dégg ñu tudd rapportu élection. deuxièmement nañ suñu liste. nañ ko rétablir mhm. parce que dañ ko génne illégalement voilà nous ce que nous demandons maintenant ñun waxuñu ne duñu ñu battre campagne suñ suppléant ci ñu liste ci ñun lañ bokk mhm. on a ah, loolu c'est pas c'est pas ça le débat. le report des élections nga xam ne fu mu toll nii ñu koy agiter un peu partout. loolu Macky Sall moo koy def ñoom la ñoom ñoo koy ñoom la rek ci ci ci ñoom la parce que vous êtes pour ou contre ça vous arrange. non ñun ñun nañu respecter calendrier républicain la ñu wax. dañuy def société calendrier te di ngeen bokk yéen par force ngeeneen ah. yéen doo leen bokk bokkatu ah. seen yi ngeen ci vo seen liste titulaire yéen pare ngeen ci ñun ñun dèjà ñun dèjà dañuy li ñu jàpp sax ko bu ñu saraxe woon liste bi sax dañuy gagné élection yi avec le plan PDF le plan PDF fii nii comme li li avocat yi wax keroog mu leen ci ci ci ci procès bi dafa yi Yewwi dafa def remontada et que le pouvoir panique loolu moom mu indi pension yi me nag na juge bi moytu dugg ci maanaam fii ne ni li Yewwi nekk maanaam ni yi def élection locale yi ak ni mu taxawee ak ni ñu xamee ne yi moom moo dugg ci digg xolu xolu sénégal yi loolu moom moo jaxase léegi nag ñu xëy. ñu xëy ñu tëral bay ma expliqué yi moom boo leen ko defee si législative bi moom benn bokk yaakaar voilà dafay euh, gagné haut la main am majorité euh, mécanique à l' assemblée nationale faut même pas se fier à ces résultats. si local yi gis nga élection gis nga. voilà buñ ko notee noonu rek élection législative. <laughs> élection législative au Sénégal histoire man gisuma fenn fu histoire opposition amee cinq départements. Mm. yiw yi rek bu demoon rek. day ëppale dix départements léegi nag le plan Yewwi Benno li ëpp ci départements yi boo jëlee les quarante six départements nga teg ko maanaam lu tuuti tuuti tuuti plus de trente maanaam boo defee les cumuls de voix Yewwi Benno Yewwi de Yewwi Wallu ko intercoalition bi day gagné lii moom mooy li nga xam ne moom lañ méree méree Déthié Fall lii mooy li nga xam ne moom lañ ko singalee lii mooy li nga xamante cette trouvaille là cette ingéniosité moom moo tax ñoom mënuñ ko gobe loolu même même la même même le procureur dafa rëccal démb. mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi naan mu ngi ko naan avec sa intelligence bi nga am avec sa sa sa sa et cetera lu ne mu ngi ko ko mu ngi ko koy wax parce que intelligence boobu moom moo tax mu créer le plan le plan le plan de Thiéfal l'intercoalition Yewwi Askan bi fu département bu ñu leen fekk. dañ leen di dañ dañ dañ leen koy def. mais au-delà de Benno Bokk Yaakaar bi euh, dafa mel ni yéen aussi seen euh, biir dans l'opposition yéen a ngi naay wéet ci bilee xeex parce que gis ngeen euh, ay kàngaam yow aar Sénégal nga xam ne si opposition bi la bokk ñoom ay doctor docteur Abdourahmane Diouf kii di Thierno bokk ñoom génn neen voilà wax carrément. à visage découvert di xam ne ni nii yéen nii Yewwi nii Benno Bokk Yaakaar waru leen bokk si euh, bi les élections ñu bëri jàpp ne aussi euh, il y a une opposition dans l'opposition waaw mais ñun Yewwi opposé wuñ benn opposant ñun Yewwi on respecte tous les opposants parce que li ñu gëm mooy ko ñun loolu lañ gëm opposant fii jiir suñu réew yi dañ rek dañ koy neewal doole mhm. bu ñu la rombee dañ lay may ndox boo amee jafe-jafe dañ lay ñëw soutenir mhm. loolu lañ gëm léegi nag képp koo xam ne dafa da nga gëm beneen posture. mais mais soutenir aussi tamit sa naataango ba tamit soutenir ko si yoo xam ne da jàpp ne carrément nekkul si si yoon aussi. loolu voilà non non ñun amul ñàkk ñu soutenir ci yoon parce que ñun les actes que nous posons sont conformes à la légalité. Mm-hmm. voilà donc les actes que nous posons sont conformes à la légalité mais ku jàpp ne nag waroo ñu soutenir. ku jàpp ne da nga def adversaire ku jàpp ne peut-être voilà ñun peut-être dañ lay gêner loolu sa affaire la mais dans tous les cas ñun nous sommes dans l'opposition nous soutenons justement donc tous les opposants yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci même bord politique bi te na élégance bi nga xam ne ak rapport ami amical yi doon am entre les opposants yaakaar naa ne waruñ koo yàq ndéeg ay positionnement wala ndéeg ay. parce que am na mais pour certains. Mhm. parce que am na ñoo dañu jàpp ne il faut que tu pour que j'existe am na pour ñu pour ñu nekk il faut ñu doon mooy seen waajur gaañu seen mag gaañu wala wala yeewi disparaître. am na ñoo ne ni ñoom pour ñu aubaine la bu yeewi disparaître mais yeewi disparaître du disparaître yeewi moom moo fi ne. waaw te loolu yoo xam loo lot de problèmes dans Yewwi on a vu beaucoup de départs beaucoup de frustration non y a pas de départ il y a euh, pas de, y a dans Yewwi y a y a y a y a y a qu'une seule départ. Mm, ah, ah, ah, en tout cas benn départ benn départ lañ noté dans Yewwi. benn Me Moussa Diop. Maître Moussa Diop. Qu'est-ce déjà voilà l'ex-maire euh, Bamba Dièye moom finalement il est dans Yewwi voilà mais benn tànk bi aussi euh, mu ngi si ah, biti. ah mais mun xam nga looy waxee benn tànk si biti <laughs> cest à que yow da nga da nga ne ay départ da nga ne ay départ non ah. defoon na da nga ne ay départ. Ah, may mais on a vu beaucoup de frustration. si biir Yewwi gis frustration am na ci. part ku mel ni Girassi ku mel ni comme le docteur euh, voilà. le le Girassi de justice la yendu. n'est-ce pas mais de toute façon gis neen ba ñu defee euh, seen kii euh, moom génn di xam ne ne carrément ngeen defee seen liste yi du yoon gis euh, de Thiès mu démarqué wu carrément si seen liste yi ni ngeen ko seen investiture lan mooy démarqué wu c'est quoi qu'est-ce que tu appelles démarqué wu dafa jàpp ne carrément dafa waroon bokk waaw mais mais taxul nga ne dafa démarqué wu xam nga tey maanaam baat yi dafa am solo mais est-ce que c'est sérieux aussi le maire de Thiès ñu mel comme ku ko kii mu mel comme yeewi dans askan yi. li ngeen di jiiñ fee moom ngeen li ma xam daal ci maire de Thiès man sama xaritu bopp la. Mm. on a fait énormément de choses ensemble. bi ñu nekk mm. université mu nekk président amical fac lettres ma nekk président amical fac de droit on a créé ensemble la JDS mu jiite ko ma topp ci kawam on a fait des choses ensemble. Mm. c'est donc il est extrême c'est un c'est un c'est un grand militant un grand républicain un grand patriote boo xamante ne ni il a sa place da ci ñu boor politique. kenn kenn du ko sagane te kenn waru koo sagane mhm. man loolu laa gëm loolu laa xam mhm. n'est-ce pas je pense que dégg naa ko yàggul dala téléphone man li ma jàpp mooy que Babacar Diop c'est un garçon extrêmement valeureux qu'il faudrait avoir à ses côtés loolu moom man loolu laa gëm mhm. voilà donc mais il faudra que nit ñi relativiser Yewwi Askan bi benn départ moom moo fi malgré nag alors donc les frustrations peut-être c'est normal malgré alors donc peut-être les récriminations c'est normal malgré les critiques sur les investitures loolu yëpp dañu koy nangul nit ñi mais nag départ moom ñun du ñu daje xeex ñiy dajee di xeex bu ñuy def comité électoral di toñante boobu ñoom ñooy waa kër Macky Sall <laughs> waa kër euh, Macky Sall restons toujours euh, voilà pour terminer cette émission par rapport ak euh, li nga xam ne mun nañu wax ne droit la ba tey te ñu gis ne les constitutionnalistes yi dañ see am gis-gis bu uute le président par rapport ak mandat troisième mandat bu président de la République Macky Sall dernière sortie yi nga xam ne am na ko amal na ko mu mel ni comme nii oui nii non bi nga xam ne le président doloon ko wax finalement dafa mel ni comme moom bëgg na am li nga xam ne mooy troisième mandat euh, euh, euh, bu ñu xoolee constitution bi nga xam ne ñu ëpp si constitutionnaliste yi dañ see am justice bu wutee non non non amul amul benn amul amul benn constitutionnaliste boo xam ne day défendre ne Macky Sall mën na am troisième mandat amu fi. ah mais am na constitutionnaliste yoo xam ne jàpp ne Macky Sall. kan kan ban constitutionnaliste 2024 deuxième quinquennat am la war a dugg amul amul. amul amul amul dans ce pays là. am na amul kenn <laughs> amul. du du doon constitutionnel bu mukk man je suis un ci rangu constitutionnaliste laa Ismaïla Madior Fall léegi Ismaïla Madior ñimul wax loolu <laughs> même bu nekk Ilaah bu mu wax na en principe parce que da nga fay ne mu ngi doon jàngal français naan je répète. Ah ah. ñimul wax loolu. Ismaïla ah Madior ñimul wax loolu. waxuma ne nag ñimul battre campagne. Hmm. mais ñimul wax ne président Macky Sall am na droit troisième mandat. Hmm. je pense que non parce que c'est une véritable abomination. Hmm. et donc c'est un grand intellectuel accompli. boo xamante ni bi mu doon li mu doon président Macky Sall falu waaju booy falu mm. n'est-ce pas il est agrégé en 2007 mm-hmm. yaa ngi dégg boo président Macky Sall soit mu ngi nekk président assemblée nationale xaw ma mm-hmm. yaakaar naa ne li mu am maanaam sa respectabilité son rang intellectuel loolu du Macky Sall moom moo ko jox. seen concert de casserole bi maa ngi ko fàtte maa ngi ko bëggoon sax fàtte euh, voilà c'était un pari euh, réussi wala folklore bi nga xam ne mën nañu wax ne sénégalais ku ko woo si Mumbai moom voilà. Ah, ah, il applaudit Sénégalais da nga jàpp ne ay Mumbai kat la. <laughs> man ci laa bokk mu baykat la. Ah. man tëggoon na est-ce que man dama tëggoon parce que. voilà je m'ennuie parce que non da nga tëgg tëgg parce que am na lu la naqari ci dëkk bi. <laughs> man n'est-ce président Macky Sall li ñu jàpp. <laughs> mooy que nii wuyam boobu noonu moom lay wéyee. <laughs> bon nii wuy bi. déjà xaw na ko atténuer. élection locale bi mu ñëwee mais léegi élection législative yi moom mooy bi koy waxloo non wala oui. Mm-hmm. moo tax élection locale bi moom mooy le dernier verrou. Mm-hmm. bi nga ne sénégalais yëpp a war a mobiliser wu pour que ñun duñ fi yegg ay dé li fi doon am ay ay ay 2011 2012. Mhm. mu ne damay déposer débat am. parce que il faut que bu amee raclé ci élection législative yi. Mhm. mu xam ne nag sénégalais yi nañ mhm. c'est extrêmement important. maanaam élection parce que dañ ko doon wax am na ñoo xamante ne nii ci opposition lañ nekk ah. bu naan les élections locales souvent donc mooy sont liées la présidentielle ñu ñu jéem a indil ay théories xam aussi des fois des objectivité intellectuelle dafa baax. Mhm. di bugg a bugg kii affaire bugg a jaay ni ñi benn bi genre genre genre genre muus yooyu amul benn njëriñ donc mais li ñu jàpp mooy que élection législative yi mooy le dernier verrou pour barrer complètement la route au président Macky mu xam ne. finalement day mujj génne mosuma wax ne damay def troisième mandat c'est vrai que mosu ko su ko wax. Ah, c'est vrai donc daf ñu wax ne nii wuy non nii non rek. <laughs> nii wuy mooy que damay xool nan la Sénégalais yi justement la mais Sénégalais yi moom xam ne Sénégalais yi bàyyi nañ ko. <laughs> mais nag il faut que Sénégalais woon ko loolu boobu bu fa nekk naan non ay 40 la ci diggante bi mun naa ci diggante 6 mois yi mois yi mun naa li ci il faut que ñu defal ko abraqué. Hmm. c'est extrêmement important parce que moo gën ci réew mi moo gën ci dalub réew mi moom moo gën ci ëllëgu réew mi. donc moom mooy espoir bi nga xamante ne Sénégal yi ñu ko am nañ ko commencé ci législative yi. Mhm. merci beaucoup.